ayaduubu ndax dana ruy ruy alxadiid dinañ ko ñëwal finnaari ci sawara wala nga ne xël yaduubu ndax dana ruy alxadiid dinañ ko ñëwal finnaari ci sawara ñu laajte ba xam ndax yoon ko ñëw boo ko tegee sawara dina ko tax ruy wala déet axaliyu ndax aliyu musaafirin moo di aju tukki am xasan wala xasan bu dee xal na nga ne xal aliyu ndax aliyu musaafirin aju tukki la aji ita ndax dikk nga raakiban mbir mu ngay aji war am machine wala ngay aji dox bu dee xal nga ne xal ji ita ndax dikk nga xal ji ita raakiban mbir mu ngay aji war axadarta ndax teew nga sabaaxan ci suba am masaan wala ci ngoon bu dee xal na nga ne xal xadarta ndax teew nga sabaaxan ci suba albaxas idaa ta amalta boo setantalee aljumala jumla ya fil amsilati ci misaal yi almutaqaddimati aji jiitu almutaqaddimati wajatta nga fekk almutakallima aji wax ja fii kullin ci kenn ku ne min haa ci ñoom yastafhimu muy laajte xan amadi walis mbir lam yaarifu moom xamu ko wayatulu bu te muy sàkku mina saamihi ci aji dégg ja an yu'limahu mu xamal ko bihi ci moom wallës yi la nga xam ne afaada moo tegtale al istifhama laajte ga fii jumalil qismi ci jumlay xaaj ba al awali ba jëkk xoo moom al hamsatu mooy hamsa wallës yi la nga xam ne afaada xoo moo ko tegtale fii jumalil qismi ci jumlay xaaj ba ak taani ba ñaareel xoo moom xël mooy xël wali taalik ngir loolu yu sàmmaa def na tudde kullun kenn ku ne minal hamsati ci hamsa waxal ak xal adaatas tifhaamin jumtukaayu laajte mbooleem misaal yi nga xam ne moo jàll boo ko dee xoolaat da nga gis ne day wax daa am mbir moo xam ne xamu ko di ko laajte bëgg ki muy waxal wax ko ko xamal ko ko mu ne nag jumtukaay ba nga xam ne moo xoone ne kii wax day laaj bu dee ci ligne bi ci ndeyjoor mooy am sa ga nga xam ne moo nekk ci njëlbeenu jumla yi bu dee lim bi càmmoñ nag xël ja nekk ca njëlbeenu wax ya ci misaal mu ne mooy jumtukaay bay laajte loolu nag moo tax kon am sa googu ak xël ku ci nekk ñu koy tudde jumtukaayu laajte walakin waaye ala yu jëdu ndax deful fekk farxun genn teqale baynal istifaami diggante laajte bil hamsati ci hamsa wal istifaami ak laajte bi xal ci xal balaa ah kay fa innaka naka yow isaata amalta boo seetantalee am silatal xismi misaali xaaj ba al awali bi jëkk xaysu adaatul istifaami fa nga xamee ne jumtukaayu laajte ba hiya moom alhamsatu mooy hamsa wajatta nga fekk al mutakallima aji wax ja taaratan léeg-léeg yajhalu muy réere madmoonal jumlati la jumla ba làmboo lu mu làmboo jumla ba mooy maxnaam jumla ja rek mooy la jumla ba làmboo taxu moom kon yastafhimu dana laajte an walis ko wa yatlubu te muy sàkku alxilma xam nga bihi ci moom kama fil amsilati na mu nekk ci misaal ya asalaasati ya di yet al ula ya di way jëkk wa taaratan léeg-léeg yaarifu dana xam haadal madmoona li le jumla ji làmboo walakinahu waaye moom yajhalu dina réere waaxidan lenn min shay'ayni ci yaari yëf aw ashiya wala ay yëf wa yasalu tamuy laaj wa yasalu an ta'yinihi walis ak ràññeelam kama fil amsilat ni mu nekk ci misaal ya as-salasati yadiyat ak taaniyati aji ñaareel gannaaw bi nga ne am sa day laajte xël day laajte mu ne la waaw ndax amuñu genn woote ñooye moo képp képp ah kay am na ñu woote kay nee na ndax soo ba njëkk a xool am sa mi féete ndeyjoor moom mën na laajte mbir moo xam ne ko umpale ndax am na wala amut ni ki yett yu njëkk yi day laajte ba xam ndax jant bi fenk na wala fenkut ba ca topp ndax ndaw la delsi na wala delsiwut ba ci topp ndax yoon gu ñëwul dana ruy boo ko defee sawar wala déet nga xam ne foofu dafa umpale la jumla ba làmboo di laaj nag ba xam nu mu demee bëgg ñu xamal ko ko loolu nag wuute naag yett yi féeti suuf yett yi féeti suuf moom daa xam ba noppi bëgg ko ràññeelal mooy li muy laaj xam na ne xew-xew bi ñàkkul fu mu féete waaye nag dafa am ñaar mbaa lépp ñaar ñoo xam ne xamut fan la ca xew-xew bi féete nga xam ni ki bu ne ndax Aliou moo tukki mbaa Assane xam na ne ñoom ñaar am na ci ko tukki waaye daa bëgg nag ñu ràññewee ko ndax Assane wala Aliou la bu la nee ndax bi ngay ñëw dangaa war am dangaa doxal sa tànk kon xam na ne ñëw nga te it benn dangaa war mbaa dox dangaa dox ak tànk bëgg na nga ràññeel ko ba xam loo ca def ndax bi ngay ñëw dangaa war am dangaa dox ak tànk bi ci mujj ci ñett ñooñu mu ne ci suba nga ñëw wala ci ngoon xam na ne ñëw gi am na moom ba noppi waaye nag ndax ci suba la wala ci ngoon la loolu la umpale woon mu bëgg na nga ràññeel ko ndax ci suba la ci ngoon la nga xam ne kon am sa moom mën naa laajte lenn rek loo umpale ndax am naam amut ak nu mu demee mën naa laajte itam ci bëgg ak ràññeel ci yaar wala wett yoo xam ne moom am na lu mu ci xam ba noppi nag waaye daa bëgg ko ràññeel nu mu demee ci yaar yooyu ci yett yooyu ci nekk am sa na koy def waaye kon dana nekk al jawaab bu tontu la fil xaalati ci mbir ma al ula ma njëkk bi na xam ci naxam bi na xam ci naxam waaw aw jëyri wala jëyri waaw aw ajal wala ajal waaw in urida ndeem bëggeef na al isbaatu saxal wa bila ak ci laa in urida ndeem nameef na al naf yu dàq ga mu ne nag bu fekkee am sa ba day laajte ndax nangam xew na wala xewut am na wala amul rek xamu ca dara dara dara kon bu fekkee da nga ko bëgg a tontu ne ko waaw am na kay mën ngaa jël naam mën ngaa jël jayri mën ngaa jël ajal ci bam ne ndax jant bi fenk na fekkee yow jant bi fenk mën nga ko ne naam mën nga ko ne jayri mën nga ko ne ajal su fekkee nag loola dafa nekkul lu sax dafa dàqu kon nga indi laa ne ki bam laajte ndax jant bi fenk na nga ne ko laa déedéet fenkut ndax ndaw li delsi na nga ne laa delsiwut ndax loolu gu ñuul boo ko defee sawat na ruy boo koy tontu ci waaw na ruy kay naam wala jéeri wala ajal waaye boo ko bëggoon tontu ci déedéet du ko tax a ruy kon laa nga indi amma fil xaalati daal ci mbir ma ak saaniyati mi aji ñaareel fa yekkoon dana nekk al jawaabu tontu la bi temps yi di ci ràññeel ga laa xëyru du leneen fa yu xaal di dee fi wax fil jawaab bi ci tontu la andil misaal yi walis misaal ma arraabi yi ñi aj ñeenteel ne aliyun aliyu masalan ci misaal bi nga xamee ne am sa bi day laajte bëgg ko ràññeelal ci yaar mbaa lu ëpp yaar kooku moom day tontu da ngay seet nooy ràññeele yaar yoo ko lënt ba mu leer ko mbaa lu ëpp yaar nga ràññeel rek ba li nga lëntoon dañ ni ki ba mu ne ndax aliyu moo tukki mbaa asan soo koy tontu te fekk na aliyu moo tukki nga wax aliyun aliyu moo tukki bu dee asan nga ne asan loolu mooy tontu nga ko la umpale woon léegi leer na ko moom noonu dong lañ koy tontoo amma am salitul xismin daal misaali xaaj ba asaani ba ñaareel xaysu adaatul istifham fa nga xam ne jumtukaay laajte ba xiya moom xël mooy xël fal istifhamu laajte ga fii xaa ca moom inama huwa naka moom xan mab moo nil jumlati nekk na ci lu ñu làmboo jumla ja maanaam la jumla ba làmboo ndax am na wala amut wala saalik ngir loolee yokkoon dana nekk aljawaabu tontu la xonaa fii kal xanil istifhaami walis laajte ga bil xamsati ci xamsa fii xaalatihaa ci mbiram ma al ulaa ma njëkk xal moom bu dee laajte day mel ne maanaam mu njëkk mi nga xam ne am sa daana ko amee mooy rek laaj ba xam ndax loola am na wala amut niki laajte ba xam ndax jant bi fenk na wala fenkut ndax jant bi son wala sowut lu mel noonu xam ne lenn rek lay laajte ba xam am naam amut xel moom foog fekk noonu lay laajtee daal di yem ak am sa ci maxnaa mu njëkk ma nga njëkkoon waxal am sa ndax am sa da nga koy waxal yaari maxnaa su boobaa na kon boo laajtee xel ndax nangam am na wala amut su fekkee da ngaa bëgg a saxal ne waaw am na kay alxem daan tontoo rek mu ngay indiwaat muy naxam wala jëwri wala ajal. bu fekkee loolu amul nag nga indi laa déedéet amut alqawaidu yustafamu def na laajte bil hamsati ci hamsa waxal ak xal xan mabba moo nil jumlati walis la jumla ba làmboo wa yakun tay nekk al jawaabu tontu la bi naxam ci naxam aw jëyri wala jëyri aw ajal wala ajal in urida ndem bëggeef na al isbaatu saxal ga wa bila ak ci laa in urida ndem bëggeef na an naf yu dàq xam saak xal léeg-léeg ñooy bokk mel ni max naa dañuy laajte rek xew-xew sàngam ndax xew na wala xewut bu dee loolu moom mën laa sàkkal baat ya ngay tontoo ndax bu yàlla dogalee loola xew xam ne lu am la nga bëgg a saxal nga ne naam wala jéeri wala ajal fekkee loolu amul nag nga ne laa yustafam def na laajtee yustafhamu bil hamsati ci hamsa aydan ba tey an waahid mu welis kenn wala lenn min shay'in ni ci yaar aw asiya wala ay yëf wa yakkoon tey nekk al jawaabu tontu la xiina isn ci waxtu woowee bi ta'yin ci ràññeele laa xëyru du leneen am ta nag moom léeg-léeg mu laajte laajte boo xam ne xel du ko def maanaam léeg-léeg moom kii laajte am na lu mu xam ba noppi waaye nag dafa am yaar wala yëpp yaar yoo xam ne daa am lu ko ci jaaxal li xew xamul kan ci yooyu yaar la xewe wala ci kan ci mbooloo moomu la ca xewe ne moom wóor na ko ne lii xew na mbaa lii xewut waaye ana xew-xew bi ci kan la aju ci yaar yi wala ci lu ëpp yaar yi am say laajte lu mel noonu ni ki mu ne ndax Aliou moo tukki wala Assane xam nañ tukki am na ci kenn ci ñoom ñaar waaye nag xamu kan la ci ñoom ñaar lu mel noonu nag moom dañ la wax ne la baat sàngam nga koy tontoo moom daal da ngay seet noo koy tontoo ba la bëgg xam mu xam ko rek ni ki ci misaal ni waxoon boo ne ko Assane Assane tukki wala Ali Ali tukki mu daal di leer dañoo waxoon jumtuwaay laajte yi am sa ak xel lañ cee jiital mu dolli ca nag baqiyatu adawaatil istifhaami li des ci jumtukaay yi laajte ga daa bëgg a boole ci des yépp nag sësale leen rek mu gàtt mu njëkkee al amsilatu man haada rajulu ana kan moo jile waay man ixtatta ana kan moo plan al qaahirata keer keer ku ko natt plan ko mën na si lan mooy li nga xam ne bi yeddi ko tekk na sa loxo ñu rekk sa loxo maa taf xamu ana looy def bi nibraati ko ci sa taay bi taay bi nga yor loo ci def mu ne taay bi ngay yette bi ngay sote crayon mata yu junaa ana kan la dee si wet alxutunu weteen weteen kañ lañ koy góob mata yusrahu ana waxtu ñuy bay alxasa bu ga taxu suukar ay na daarukum ana fan la seen kër ay na yeji tamit ana fan lay daje ixwaanukum seeni mbokk mu ñëw ci albaas te amal seetantalal aljumala jumla ya fil amsilati ci misaal yi almutaqaddimati yi aji jiitu jamihiha mboole seen tajit xaa kon nga fekk leen istifhaami yatan ñu ko jóg laajte li anna al mutakallima ngir naka aji wax ja yatlubu dana sàkku fii kullin ci misaal bu ne min xaa ci ñoom alxilma xam nga bi cheyin ci dara yajhaluhu wa dana ko réere mu ne mboole misaal yi nga weesu ñeent ci ndeyjoor ñeent ci càmmooñ misaal mu ci ne ak laajte moo ci nekk ndax kay wax daa am lu mu umpale bëgg ñu wax ko ko ndax loolu lay laaj wa isaata amalta boo seetantalee maa la nga xam ne waqaxat dal na xale ci kawam adawaatul istifhaami jumtukaay yi laajte ga fil amsilati al mutaqaddimati wa kasaalika naka noone it fi kulli misaal ci mépp misaal aaxara maneen wajatta nga fekk man-man laa taqaxu du tàbbi illaa xalal xuqalaa yi ndara ci way xellu ya wa maa nga fekk ma laa taqaxu du tàbbi illaa xalaa xayrihim ndara ci ñu may ñoom ñu dul ñoom ñu xellu wa wajatta ta nga fekk mata mata taqaxu muy tàbbi xale zamaani ci jamono daa iman faw wa ay na nga fekk ay na taqahu muy tàbbi xalal makaani ci béréb daa iman faw mu ne boo seetloo jumtukaay yi laajte lañ dugg da nga gis ne man moom fi nga ko dugal fépp day lu xellu lu xellu bu ñu ko waxee mooy nit mbaa jinne mbaa malaaka ni ki man haada rajulu ana ko jile waay kooku nit la man ixtattal qaahirata ana ko planquer ba tey loolu nit la maanaam moom boo seetloo fi ñu ko jëfandikoo yépp lu xelluwul la lu amul xel maan loo xam ne du nit du jëne du malaaka ni ki boo nee lu ne ci sa loxo waay wala looy def ci taay bi nga yor loolu si nga jëfandikoo maa du lu am xel soo seetloo nag mataa da nga gis ne dañ ko jëfandikoo rek ci jamono ndax dañoo njëkk a laajte wëttéen ana yan jamono lañ koy góob di ko wat ak ka tax suukar ana yan jamono lañ koy ji di ko bay kooku mooy mataa day laajte jamono ay na nag moom day laajte béréb ndax bu ne ay na daarukum day laajte ba xam seen kër fan la toll fu mu nekk ay na yeji tamit ixwaanukum day laajte ba xam seen mbokk ana fan la ñuy tase البحث تأمل ستنتلل الجمل جملة في الأمثلة كمثالية المتقدمة أجيجيتو جميعها مولسين تجدها كون فكلين استفهامية يكجوك لاجته لأن المتكلم غيرنك أجوحجة يطلب دنا ساكو في كل تكن كنه منها تنيوم الهلم خمغة bi shay'in ci dara yajhaluhu loolu dana ko réere ne mboolem jumle yi nga xam ne ñoom nga weesu léegi te mat nañ juróom-ñett boo ko seetloo jumle bu ci ne mën nga ne jumlëb laajte la ndax kay wax dafa am lu mu umpale te bëgg koo xam ba di ko laaj wa isa ta amalta ndeem seetantal nga maa la nga xam ne waqaxat dal na xalihi ci moom adawaatul istifhaami jumtukaay yi laajte ga fil amsilati ci misaal ya al mutaqaddimati aji jiitu wa kasaalika naka noonu fii kulli misaalin ci mépp misaal aaxara meneen wajatta nga fekk man-man laa taqamu du tàbbi illaa xalal xuqalaa yi dara ci way xellu ya wama nga fekk ma la taqamu du tabbi illa ala ghayrihim ndare ci ñu dul ñoom wa jattat nga fekk mata mata taqamu mi tabbi ala zaman ci jamono da iman faaw wa ayna ayna dang ko fekk taqamu mi tabbi ala makani ci bërepp da iman faaw mu ne nag boo seetloo la nga xam ni ca la jumlukaay yi laajte ja dal maanaam ci la dugg moo xam ci misaal yi nga jàng ba noppi la moo xam da nga koo gis feneen ci téere yi lu ci mën di am daal xoolal rek fa jumtukaay yi laajte ba di dugg su dee mën a foo ko fekk lu xellu rek lay doon te lu xellu mooy nit ak jinne ak malaaka ba tey boo seetloo gis ne maa moom foo ko xool ci jumle yi nga jàng léegi wala ci feneen ci téere yi day laajte waaye ci lu xeluwul rek lay dugg daañu leeral na ci téere yu mag yi ne xëy na nga fekk man mu dugg ci lu xeluwut waaye bariwut xëy na nga fekk maa mu dugg ci lu xellu waaye moom itam bariwut mu ne itam boo seetloo gis ne mataa moom faw jamono lay laajte ay na itam birëb rek lay laajte waxu naa ko nekk na foofee xayrama ndare la nga xam ne taqaddama jiitu na adawaatun ay jumtukaay uxraa yeneen lil istifhaami ngir laajte min xaa bokk na ci ñoom kayfa kayfa wa kam ak kam wa ayun ak ayu yoon mu ne lu bokkut ak jumtukaayu laajte ya nga weesu am na yeneen jumtukaayu laajte yoo xam ne kayfa ca la bokk kam ca la bokk ayun ca la bokk fa kayfa kayfa yus alu def na laaj bi xaa ci moom xanil xaali wali si mbir ndax wu kayfa anta naka la yow wa kam kam yus alu def na laajte bi xaa ci moom xanil adadi wali si lim ndax wu kam ñaata xujuratan ci ay néeg fil man si li moo nekk ci kër gi wa ayun ayu yus alu def na laaja bihaa ci moom an jamihima walis mboolem li nga xam ne taqaddama jiitu na fa yus alu def na laajte bihaa ci ayu xani zamaani walis jamono wal makaani ak béréb wal xaali ak mbir wal xaaqili ak aji xellu wa xayril xaaqili ak kudul aji xellu ala hasabi ma ci kem la nga xam ne tuddaafu def na ko laaf moom ayu ilay jëm ci moom te yuqaal def na wax ayu rajulin ana ban waay la haasa kii kii kum doon ak wa ayal xisaanay ni ana ban ci ñaari fas yi rakibta nga war daa wax ne kayfa ak kam ak ayu bokk nañ ci laajte kayfa moom day laajte mbir ni ki boo bëggee wax nu mu def ci tawat ji mbaalu mel noonu kayfa nga koy laajtee ni ki kayfa anta naka la yow na nga def mooy kayfa anta kam moom ab lim lay laajte bëgg a xam ñaata kam day firi ñaata ni ki kam xujratan fil mansili ñaata néeg moo nekk ci kër gi ay nag moom noo ko bëgg a laaj rek mën na koo laaj mën naa laajte jamono mën naa laajte béréb mën naa laajte mbir tolluwaayut loola mën naa dugg ci lu xellu mën naa dugg ci lu xelluwut moom daal dafa baaxoo laaf loo ko laafal rek mën naa ànd ak moom amal jawaabu daal tontu la xan jami xima walis mboolem li nga xam ne taqaddama jiitu na fa yakkoon dana nekk bi taayinil masoli ci ràññee la ñuy laaj an walis ko mu ne yii yëpp nag moom lu la mën a wax ne la buñ la ci laajee na nga tontoo baat sàngam moom daal fexeel ba ràññeelal kooku la muy laaj ba mu xam ko rek waaye amul benn baat bi lay jox naa la tontoo ko alqawaidu kon lii mooy takk-takk yi lil istifhaami ñeel na laajte ga adawaatun ay jumtukaay uxraa yeneen xayrul xamsati yu bokkut ak xamsa waxal ak xal wa min ashhariha bokk na ci gën jaa siiw ca ñoom maa li nga xam ne yëti mi ngi dikk man ka ci jëkk mooy man wa yusalu te def na laaje bi xaa ci moom anil xuqalaayi walis way xellu ya maa ak maa wa yusalu def na laaje bi xaa ci moom xan xayril xuqalaayi walis ñu dul way xellu ya mata ak mata wa yusalu biha ani zamani walis jamono ayna ak ayna wa yusalu biha anil makkaani walis béréb kayfa ak kayfa wa yusalu biha anil xaali walis mbir kam ak kam wa yusalu biha anil xadadi walis ak lim ayun ak ayu wa yusalu def na laajte biha an jamihima walis mboolem li nga xam ne taqaddama jiitu na nee na boo bëggee gàttal li nga weesoo na ngay wax ne am na yeneen jumtukaay yoo xam ne boo weesoo xamsa ak xal ñoom it mën nañoo laajte yi ci gën a siiw nag mooy yi mu indi man siiw na ca lool waaye moom lu xelu rek lañ koy laaje mel ne nit mbaa jinne mbaa malaaka maa lu xeluwul rek lu bokk te yett yooyu nga wax mataa moom boo bëggee laajte ban jamono ngay jël mataa ay na it béréb boo bëggee laajte ban béréb kay fa it boo bëggee laaj naka mbir ma nu mu demee kam moom boo bëggee laajte ab lim ayun nag moom loo bëgg laaj rek mën na koo laaj ci yooyu yëpp ida kaanat dem nekk na adaatul istifhaami jumtukaay laajte ba fi jumlata ci jumla ba waahidatan di benn minal adawaati jumtukaay ya al safee juróom-ñaar al madkurat ya tudd xunaa fii kaana ko nekk al jawaabu tontu la bitaa yi masooli ci ràññee la ñuy laaj rek an xoolis ko mu ne nag jumtukaay yi nga mujj tudd moom amut baat bi nga mën a jox naa la moom ngay tontoo laajte ba moom daal bu dee juróom-ñaar yi moom fexeel ba rek ràññeelal kooku la muy laaj ba mu xam ko rek waaye amut baat bi lay jox naa la tontoo ko al istifhaamu laajte wan na fi ak dàq maxaan mbir mi ñuy ànd ñoom ñaar mbir mi boole seen mooy ñu bokk ànd léeg-léeg dañuy boole laajte ak dàq xam ne jumla bi am na dàq am na laajte njëkkee al am silatu alam tara ndax gisoo xadi xatanaa sunu jardin bi ndax gisoo sunu jardin bi ala tuxibu ndax doo bëgg al iqaamata sax fil xuraa ca village ya xanaa bëgg laa toog ca kaw ga nekk ca kaw ga dëkk yu ndaw ya alaysal xutunu ndax déet wëtteen ximaada tarwati muy kennul koom-koom fii misra ci misra ndax wëtteen doonut li ëpp solo ci koom-koomu misra ni gerte masamel fii ci Sénégal rek alaysat misru ndax déet misru mahbita suyaaxi muy wàccukaayu touriste yi xanaa misra doonut jëmukaayu touriste yi albahs isaata amalta boo seetantalee aljumala jumla ya assaabiqata yi aji jiitu wajatta nga fekk ku la waaxidatin benn bu ne min haa ci ñoom xadd jamaxat muy boole baynal istifaami diggante laajte wan na fi ak dàq wala maakaana ba nekkee ku lustifaamin bépp laajte yastadhi di sàkku jawaaban tontu kaanat nekk na aljumalu jumla ya almutaqaddimatu yi aji jiitu muxtaajatan di aji aajowoo ilaa jawaabin jëm ci tontu gayra ann jawaaba ndare naka tontu la xunaa fii wa kazalika naka noone it fii jamiil jumali ci mboolem jumla yi al istifhamiyati yi ko jóg laajte al manfiyati ya di ñu ndàq yakkoon day nekke bi lafzi balaa ci baatub balaa ahakay in urida dem na meef na al isbaatu saxal wa bi lafzi naxam ak ci baatub naxam in urida dem bëggeef na an na fi dàq mu ne boo seetloo mboolem yent jumla yee jàll da nga gis ne benn bu ci nekk daa boole am ak laajte akuk dàq ñu bokk fa tase ndax alam ji am sa gi day laajte lam gi day dàq ala am sa ga day laajte laa ba day dàq alay sa am sa day laajte lay say dàq alay sat ba tey noonu mu ne nag ndegam laajte boo gis war naa am tontu fii moom dañ la fiy jox ban baat ngay tontoo jàppal ne boo bëggee wax ne loolee muy laaj lu sax la boo koy tontu kon balaa aha kay ngay wax nit bu la nee alam tara xaqiqatanaa ndax mës laa gis suñu jardin bi te fekk nga mës koo gis nga ne ko balaa aha kay waaye nag bu fekkee mësoo ko gis moom ngay wax naxam waaw mësuma koo gis loolu nag moo tax foofu moom léeg-léeg ci prix bi mën naa jaxase kii jàng ba tax mu ne fa isa ajabta boo tontoo anil jumlati walis jumla ba al ula bu jëkk masalan ci misaal bi lob si balaa ci baatub balaa kaana kon nekk maanal jawaab bi maanaam tontu la mooy ànd ka naka yow raayta gisoon nga alxadiqata charne ba wa isa ajabta boo tontoo bi laf si naxam ci baatub naxam kaana kon nekk al maxnaa maxnaama ànd ka naka yow lam taraxaa mosoo koo gis waxaaka saliki ni yuqaalu la dee fi wax fii baqiyatil amsilati cay des ca misaal ya mun daal saa yoo ne balaa rek dañuy jàpp ne dangaa saxal ne loola lu am la boo nee naxam nag ñu jàpp ne loola daa amut alqawaidu al jumalu jumla yi al istifhamiyatu yi ko jóg laajte al manfiyatu yee ñu dàq yee ñoom al musaddaratu mooy yee ñu tàmbalee bi adaati istifhamin ci jumtukaayu laajte mat boo xat bi di buñ tofal bi adaati naf yi ci jumtukaayu dàq mubasharatan ci jonjoo wala directement ñu sësaloo jumla yu boole laajte dàq yoo mën nañoo xàmmee lool ndax mooy jumla yi nga xam ne tàmbali ba daje ak laajte ñu susala ca ak dàq ñu susloo rëkk rëkk ni ki boo ne alam wala boo ne alaa wala boo ne alaysa wala boo ne alaysat la ñu xàmmee jumla yu boole yaar yépp jawaabul jumali tontul jumla ya al istifhamiyati yee ko jóg laajte al manfiyati yekkoon day nekk bi lafzi balaa ci baatub balaa fi xaalil isbaati ci waxtu saxal ga wa bi lafzi naxam ak ci baatub naxam fi xaalil nafi ci waxtu dàq ga takk-takk bi mooy laajte bu ne war naam tontu jumla ñi nga xam ne ñoo boole nag laaj ak dàq booy tontu te te bëgg a saxal wane ne loolu lu am la ngay indi balaa ah kay ngay tontu balaa ah kay bu fekkee da ngaa bëgg a dàq ne loolu amul nag nga ne naam waaw at tamrin al awal ayin ràññeelal al jumala al istifhamiyata fi ma yati wa ajib te nga tontu an kul jumlatin walis bépp jumla min haa ci ñoom ijaabatan tontu tunaasibuha ba doon askanoon teeg moom jumla yi bëgg a jàng am na ci yoo xam ne dañu cay laajte am ci yoo xam ne kenn laajte wu ca mu bëgg na nga ràññeel yan jumla ñoo di tegtale ak laajte te it bépp jumla boo xam ne nee nga jumla la buy laajte waxal tontu la nga xam ne mooy yell ci buñ ci doon tontu nga ràññeel nag jumla yi nga xam ne ñoom amuñu ak laajte foofu kon du jar nga di fa wax naa. buñ doon tontu ndax ndegam dug laajte rek kon tontu du fa am atam ma ndax mat na binaa ut daari tabaxu kër gi su matee nga ne naxam waaw su matul nga ne laa déedéet xal yoon faamu ndax dana jëriñ alxirfu mokkal bilaa fahmin ci ak dégg maanaam mokkal rek te xamoo la nga mokkal lu muy tekki ndax dana am njëriñ man am ba aka ana kan moo la xibaar haza lii tont laa ngi ci ràññeel kala xibaar ni ki am ba ani ahmad ahmad mama xibaar mata yati saa yu dikkee ashitaaw faslu shita yak fur kon dal di bari al banafsaju yoleet bi mu toll moom du ak laajte dañoo indi mata bi nga xam day jasam yaari fexal ndax day ndax da ngaa sart ne saa yu faslu shita ñëwee rek yoleet day daal di bari mata bi foofu nekkul buy laajte mata boobu lisimi sart la foofu yati mooy fexal sartam yaksur mooy fexal jawaabam ay na itam ay na tusaafir foo tukki rek usaafir ma tukki ma ak ànd yow ay na boobu nekkul di laajte ay na boobu lisimi sart la